noo ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci ajjumay tey jii di séentu bu jëkk ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom tey nag nuy sof sunuy kàddu ci kàddu sunuy bokk yi toogoon fii di laayanti biir ak seen mbokki jullit te ñuy waxtaane mbir moo xam ne day mbirum sunu boroom képp yoonu doomu aadama nekku ca doomu aadama nag mën na koo rafetal mën na koo ñaawal xam ngeen ne doomu aadama bu ko soobee mën naa wuuti ab xarit walla soppe wala dëkkandoo wala soxna fu ko soob waaye am na loo xam ne yoonam nekku ci ndax yàlla noppi na ca yàlla rekk moo ko sàkk ca loola mooy ak bokk ak bokk day mbirum sunu borom nit ki day ñëw ci jamono bu gimmee rekk gis ay bokkam kon mu war a xam ne ñii yàlla moo ko boole ak ñoom dikk na ci benn xadis qudsi sunu boroom wax ne ana arrahmaanu wa ana xalaqtu rahima wa shaqaqtu laha isman min ismi nee na man maay arrahmaan turu yàlla la ma bind arrahim te mooy ak bokk nee na soo déggee baatub rahim rek danga xam ne yàlla da koo sàkkal aw tur mu soqi koo ci arrahmaan ndax fonk gum ko fonk mu ne nag fa man wasalaha wasaltu ku ko jokk ma jokk la man man man yàlla mi leen sàkk wa man qataaha batattu waaye koo ko dagg ma dagg la daggug yàlla nag yàlla yàlla nanu ci yàlla musal bu ñu demee ci alquran di ko nafar sunu borom wax na ci lu bare bare bari doy na doy na rek ñu indi fam waxe ne fa aatizal qurba xaqa sa mbokkum jege ñaale na nga ko jox àqam loola rek buñ ci yemee mu doy bu ñu ñëwee ci xaddis tam dañuy gis ne alayhi salaatu wasalaam nee na ku gëm yàlla gëm ne su ëllëgee loo defoon yàlla fay la ko del jokk sag bokk kon da caa bëgg a waxe ne ak bokk soo ko dee dox yaa ngi koy jokk soo ko dee wax yaa ngi koy jokk boo ci dee jëf yaa ngi koy jokk te nit ki li mu wax ak li mu dox ak li mu jëf su ëllëgee loolu lañ koy fay booy jokk ak bokk yaa ngay jokk li yàlla santaane ñu jokk ko moo ne walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal mbokk yi nañu xam ne jokk ak bokk day taxa gudd fan day taxa yaatu wërsëg te kenn ku ne ci nun boo sañoon danga fi yàgg te sa wërsëg dana yaatu waaye jokk ak bokk da koy maye ndaxte yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsaa lahu fi asari fal yasil rahima ku bëgg ñu yaatal sa wërsëg guddal soo fan del jokk sak bokk euh, jokk ak bokk nag ñu ko waxee du caagee ne mooy ku la jokk nga jokk ko ku la nemmiku nga nemmiku ko ku la ndokkeel nga ndokkeel ko moom daal nu la waay def nga def ko loola du jokk ak bokk danga nga gis ci ndaw ko ndaa yi ñuy wax nit naa ko koo xamul noo koy def nam la defa tax wala naa ko yaa gaaw ma gaaw waaye loolu du jokk ak bokk loolu fay bor la te wolof nee na ku munta leble war a mën a fay bor loola fay bor la kon lan mooy jokk ak bokk mooy nga fekk ki la dagg nga di ko jokk fekk ki nga xam ne danga ko soof nga di ko safoo fekk ki lay xañ nga di ko jox fekk ki nga xam ne amul ci yow soxla yow nga am ci moom soxla loolu la xadis ba wax ne lay laysal waasilu mu kaafi walakin alwaasila alladi ida qutiat rahimuhu wasalaha nee na ki nga xam ne day fay bor loo ko defal mu defal la ko nee na ko jokkul ak jokkul ak bokk waaye kiy jokk ak bokk mooy ki nga xam ne bu ñu ko daggee moom da koy jokk

أسود محمد الرسول ku mës a ñëw ci rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko yow mi yàlla yoon ni dama am ay bokk yoo xam ne dama leen di jokk ñoom ñu dema dagg may rafetal jëme ci ñoom ñoom ñuy ñaawal jëme ci man ku ma ci tooñ ma jéggal la te ñoom duñ ma jéggal ana lu ma ko tontu dane ko la in kunta kama taqulu na ka annama tusifuhumul mal mu ne ko nii nii nga ko waxee bu fekkente ne ni la demee de da mel ni ku yor ab gël di leen ko xëpp di leen ko sotti wala yazaalu maaka min allahi zahirun alayhim maa dumta ala zalik te mu ne ko li feeg ñuy doxale noona ngay doxale nii suñ boroom moo lay téel boppam yaa leen di tiim waaye ñoom duñ la tiim mukk ci àdduna bokk yi am na léeb woo xam ne wolof da koo léeb waaye damay wax ne yàlla bu mu doon dëgg bu dee dëgg rek dara du ko jar wolof day léeb ne ku rey say bokk say noon jeex loola di wuti naag njàngalem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wuti naag doxiinu borom pàkk bii di ko baax kii ndaxte yonent bi bi ko yàlla yónnee mu njëkk a gis malaaka euh, mu jaaxal ko bi mu ñëwee këram ba ko soxna sa di dëfal di ko xamal ne ku yore ma makaarimul axlaaq sunu borom du ko gàcceel mukk ne ko wallahi laa yuxzika abadan lam ko jëkk a wax dana ko innaka la tasilu arrahim yow dangay jokk ak bokk kon gis nga ku jokk ak bokk suñ borom du ko toroxal waaye bu ñu seetloo ku baax kii itam ay bokkam euh, na mu ànde woon ak ñoom nañu ko doyloo woon ci seen diggante ak seen borom noonu lañ ko doyloo woon ci seen àdduna muy rafetal diggante bi ku ci sanc moo la sancal jox la ndigal ku ci samp kër moo la ca jox ndigal ku ci am doom sax moo lay joxu tur xoolal bataaxal bii mu bindoon sëriñ bu soobee naa ko ayuha cheikhu alxillu wal xaalu yow kilifa gi di sama nijaay di sama xarit di ko ca wax wax yu daw yaram xoolal bataaxal bii mu bindoon magi mag naa ko ayuha shaqiiqu al cheikhu Mouhamadou jaara lim bokk ak moom da koo tudd yow mi ma mbokkal ñaari waajur muy al cheikh Mouhamadou Diarra walla am al cheikh Ibrahim ak sama baay tax. borom Mbàkke Kajoor wa Ibrahim Assaghir muy maam Thierno wal Muxtaar muy maam Cheikh Anta noonu la tuddee bokk yépp ba ñëw nag ci waa kër sëriñ bu soobee ne wa Cheikhu Omar muy sëriñ Cheikhu wa Cheikhu Mouhamad muy sëriñ Mbàkke di lim ba ca wa Omar muy caat ma te booba ma nga ca tukki ba ca nattu ba ca coono ya waaye fàttiwul ay bokkam gis naa. xasida gu mu tënke Mouhamadou Bousso muy nijaayam gis naa marsiye bu mu marsiyel sunu maam du Soxna Kumba ña Kumbaan Ñang ak Sëriñ Njoogu Mati Ñang mu di leen marsiyal lépp rafetal ak bokk rek kon kenn ku ne ci nun na xam ne loolu mooy jàngaleem lislaam waaye mooy jàngaleem sëriñ bu mag bi nga xam ne mooy sunu royteef jokk ak bokk nag yomb na lool soo koy nemmiku seen diggante ratax soo ko defee na ko yàlla def seen diggante ratax ku la mag jox ko ci ru mag koo mag na ko jaboote wa kullu man minka yakunu akbara min al aqaaribi fa kun muwaqira wa gayrihim wa kun maa annaasi jamii bil xuluqi al xasani yuxbibka al badia koo ci tane dee ku dimbale euh, ku ci am mbég na ko bokk ak moom ku ci am naqar nanga ko bokkoo ak moom di ko ñaanal ci lu mu yëg ak lu mu yëgul lu baax loo xam ci moom nga di ko waxtaane safaan boo xam ci moom nga di ko nëbbu nit ki ngay waxtaane lu baaxam waxtaan su dee law di law ba dugub noppam xamal ne am nga soppe ba faawu waaye ki ngay waxtaane ay safaanam nag su wax ji lawee ba mu yëg ko soo yëgee ak soo yëgul am nga noon ba faaw ak bokk des na ko rafetal ci tudde doom gis nga waa kër sëriñ bu mag mag bi nañ ca doxale des na ko rafetal ci sampal kër des na ko rafetal ci yóbbu ko penk mu aji màkka des na ko rafetal ci bu la tooñee nga jéggal ko des na ko rafetal ci yéene ko la nga yéene sa bopp xool yontu yàlla Muusaa rek ba ko yàlla yónnee la ko yàlla defal da ko yéene mbokkam ne ko wajaal lii waziran min ahli lii nga ma def muy nubuwa ak risaala defal ko sama mbokk mi muy Haaruun kon mbokk day yéene mbokkam la mu yéene boppam waaye soo amee mbokk nag amoo ci moom soxla ndax xaj na yaa ko gën a euh, yaatu wërsëg yaa ko tane man nga lum mënul ba tax amoo ci moom soxla loolu day yàq ak bokk boo amee mbokk tane ko doo ko dimbale day yàq ak bokk soo amee mbokk te soo xewlee du yëg amoo ci moom soxla su la wooyee du la jot bu la seetee du la gis xamal na ñàkk nga say bokk te loolu lépp dafa bari ci jamono ji wërsëg bu yaatu léegi day tas ak bokk te te dafa waroon di rafetal ak bokk ndax kii tane bu dee dimbalee rek bokk ga rafet kon mel na ni xutba euh, imaam bi mën nañ cee tàbbi ndax li des ci waxtu wi bëree tut ginnaaw bi mu santee yàlla sunu borom julli ci seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ba noppi dana yéen nit ñi nangeen di fàttali ko yàlla ndax am ngeen beneen buur bu dul yàlla boo xam ne moo leen di wërsëgal déedéet yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy wërsëgal ñëpp ci kaw ak ci suuf kon nag nañu xam yàlla mooy kan nañu jéggalu yàlla te dellu ci yàlla na ñuy fuglu yàlla te nit ñu baax ñi ne ci sunu kanam nañ leen teg fi leen yàlla teg def tawasul ci ñoom lu yàlla wormaal nañu koy wormaal te bàyyi tooñ ku ci tooñ sa borom na ko tuubal ku ci tooñ sa morom na nga ko jégglu ndax kat tooñ la muy jur bu ñu dul jéggalante ba yàlla ñëw ak i mbiram su boobaa ñax ku waaw day ñakk day day day lakk ñax ku tooy kon nañu bàyyi tooñ nee na kii toppe wërta tooñ waaye kii ñuy topp wërta tooñ am na xadis boo xam ne xadis qudsi la suñ boroom na yéen jaam ñi araamal naa tooñ ci sama bopp araamal ko ci yéen kon bu leen tooñante yéen jaam ñi yéen ñëpp réer ku dul ku ma gindi kon day na sàkku ci man ma gindi leen yéen ñëpp xiif ku dul ku ma leel kon sàkku leen ma leel leen yéen ñëpp rafle ku dul ku ma wodd kon sàkku leen ma woddu leen yéen ñëpp ay juum bu bëccëg te man maay jéggale kon sàkku leen ci man njéggal ma jéggal leen loolu mooy xutba bu njëkk bi xutba bu ñaareel bi dafa sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal na yéen jaam ñi la yàlla yor su ngeen ca bëggee jot da ngeen di rëccu tey tuubal yàlla tey taxaw ci kanam yàlla ànd ak toroxlu ak damu damul ndax ku baax kat soo taxawee ci buntu këram mu ubbil la buntu këram te kuy jéggalu yàlla yàlla fajal ko ay aajoom jàppandal ko lépp mu jàppandi ci moom am na ci xadis boo xam ne dafa wax ne ndax duma leen wax si lan mooy seen jàngoro ak lan moo koy faj ñu ne ko ah kay mu ne seen jàngoro mooy bàkkaar la koy saafara mooy jéggalu kon nee na yàlla na nu yàlla boole ci ña nga xam ne dañuy topp ndigalul Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla boole ci ña nga xam ne seen kër kër ak seen coono lépp loo leen jariñ tey ak ëllëg moo tax ñuy sonn kuy jàmbat daal na ko jëmee ci yàlla ndax yàlla rek mooy faj soxla kuy ñaan na nga ñaan yàlla ndax yàlla rek mooy ki nga xam ne boo demee ba xamatoo foo jëm ci moom ngay dellu yàlla mooy seen boroom fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla mooy ki nga xam ne du fi jóg mukk moom rek mooy buur. moom rek mooy maye kon ñaan leen ko ñaan ko sell te di ko sant cant gu sell yàlla na nu yàlla jéggal sunuy bàkkaar yàlla na nu yàlla suutural sunuy ayib yàlla na yàlla laabal sunuy xol yàlla na yàlla jàppandal mboolem lu nuy sàkku yàlla na yàlla yéwénal sunuy mbir yàlla na yàlla sellal sunuy jëf yàlla yàlla jubbanti sunuy wax yàlla na yàlla may nu mbooleem lu ñu koy ñaan ak mbooleem lu ñu koy sàkku mu ne kon nañuy jéggalu yàlla di ko tuubal ndax yàlla rek mooy ki am yërmande mooy ki nga xam ne moo sopp jaamam ñi yàlla nañu yàlla boole jéggal te jul jéggal mboolem koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ñaanal sunu kilifa gu kilifa gu mag ne ci kanam mbooloo mi sunu borom gën koo sàmm gën koo may wér gën koo may kàttan ndax li mu sémb lépp lislaam la ko sémbal ci toolub Cheikhuna al Xadim kon nag ko yàlla dëgëral sàmm ko ba mu li mbooleem ay yéeneem ci anam gu kawe njortam te lépp lu muy sumb yàlla nañ ko ànd ak moom ba mu yeggale ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب الذي كاد يستهل علينا هلاله الذي كاد يستهل علينا هلاله وهبت شماله أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين ابدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الخطايا كي تنالوا الخيرات والهدى وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا ألم يان للأذن الصماء أن تسمع ألم يان للطرف الجامد أن يدمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا هذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا وفي الحديث إن الدعاء في رجب مستجاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha wa xaafidu raximakumullahu ala salawaat wa amalu alxayra fa inna xayra amalikum alsolaa wa inni axsha alayya wa alaykum أن تكونوا ممن قال فيهم مقالا يتحظ به من كان قلبه حيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وفي الحديث الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين يغفر الله لنا ولكم آمين ولجميع المسلمين آمين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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 afalaa yanduruuna ilal ibili kayfa xuliqat wa ilas samaai kayfa rufiat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat wa dakkir innamaa anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illaa man tawallaa wa kafar fa yucadibuhu llaahu al-cadaab al-akbar inna ilaynaa iyyaabahum ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدنا ولك الحمد الله asalaamaaleykum